nañ ko ñaari fan yii yépp ci biir commune yu Nguéniène ñu xaaj commune bi ci ñeenti pàcc dem zone nord euh, soxna Yande nuur moo wax ci seen tur mu dem zone maritime te soxna Angélique Khadifal wax ci seen tur dem nañ aussi Mbang soxna Aïssatou Diouf wax ci seen tur ñu dem aussi zone centre soxna Soukey Ndiaye wax ci seen tur waxtaan bi ak liggéey bi ñu namoon a def yépp def nañ ko ci gox-goxaat yooyu te loolu équipe yi nekk ministère ñoo ko def moo xam directrice des stratégies la et de l'encadrement bu ñu koy wax euh, directrice Khady moo xam directrice des stratégies la ñu koy wax madame Fatmata Gueye Diouf moo xam directeur du fonds d'impulsion de la microfinance la ñu koy wax Ndiambe Ndiaye moo xam directeur de la microfinance la ñu koy wax Moussa Dieng moo xam responsable national place et prix la ñu koy wax Omar Cissé moo xam directeur général Fonamif bi la ñu koy wax Amadou Boudia Gueye loolu nag bokkul ak membre cabinet bi conseil technique yépp yi nga xam ne ñëw ne def ñaari fan waxtaan ak yéen xam ci li ngeen ne xam lan mooy mbébét bi xam ban taxawaay la ci ministère bi war a mën a indi kon balaa ma sant kenn dama leen di sant ñoom gërëm leen ci taxawaay ak liggéey bu am solo bi ñu def ma ñëw nag ci kilifa yi fi nekk bi ñuy ñëw ànd naa ak préfet ànd naa ak sous-préfet ànd naa ak mbooleem autorités yi ak service yi ñu dem njëkkee ziar imam ratib kon ñu ngi koy delloo ziar jaar nañ aussi ci àbbe moom tamit ñu ziar ko loolu dafa nekk teraanga bu am solo ñu ngi leen di sant ñoom di leen gërëm ñu ñëw nag fekk fi aussi ay responsable yu mucc ayib wax nañ fi sànq l'honorable député Nicolas Ndiaye bi nga xam ne moom mooy secrétaire général du LD mu yëkkati kàddu yu rafet jëmale ko ci man ak délégation bi ma koy sant di ko gërëm ndax dañu bokk liggéey bu bari boo xam ne dañ koy def euh, moo xam ci coalition bi la moo xam ci réew mi te ñu bokk suñu secrétariat exécutif permanent kon honorable député Nicolas Ndiaye maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm may nuyu également représentant maire maire aussi maa ngi leen di yóbbante nuyoo ci moom gannaaw biñ ko ñaanalee wér mu jug lool mottali liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def mu nekk suñu xarit lool bi ñuy waaj ñëw fii amul yoon yoo xam ne waxtaanuñu ñu déggoo ci li nga xam ne loolu lañ fi war a def kon euh, monsieur le représentant du maire yow ak conseil municipal bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bu mucc ayib bi ngeen xam ne am ngeen ko bi ñuy ñëw fii may nuyu également euh, responsable leen Ndour wax naa ko sànq moom tamit def na taxawaay bu mucc ayib madam seen ci liggéey bi nga xam ne euh, tàmbali nañ ko naal ko ba yegg si fii tey di ko doxal may nuyu aussi Étienne Sarr bu parti socialiste di nuyu Omar Wade bu bokk gis-gis di nuyu comme ni ma ko waxee sànq euh, madame Madeleine bi nga xam ne moom moo yor Corps Africa sans oublier bien sûr madame Marthe Diagne bi nga xam ne def na également liggéey bu am solo ci wàllu développement jigéen ñi kon Marème Ndour Marème Ndour voilà moom moo nekk Corps Africa ñii nag ñi nga xam ne ñoo moom gërëm li moom sant bi mooy yéen ñii nga xam ne yéen a nekk ci kuréelu jigéen ñi sant bi ci ëpp ak gërëm bi ci ëpp yéen lañ koy wax ndax nag yéen a fekk fu dara newul ngeen takk seen digg nekk ci liggéey bi gëm ko yaakaar ko te tàyyiwu leen ci ndax ku dégg ñi nga xam ne ñoo jël kàddu ci seen tur waxtaan yi ñu waxtaan ak jafe-jafe yi nga xam ne indi nañ ko ça veut que liggéey bi dëgg la yéen a ngi ci mais buñ ko gënee defar dina leen gën a arranger te jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy am wala yéen a ngi koy jànkantool terewul ngeen bàyyi ndax wax ngeen fi waxu yoon wax ngeen fi waxu courant wax ngeen fi waxu ndox may fàttali ne yooyu yëpp dafa nekk priorité ci programme de développement président Macky Sall boo seetloo bi mu ñëwee am na sànq ku jël parole ne ñëwu ministre bi bunt buy ubbeeku la mais jàpp naa bunt bi ubbeeku woon na ba pare ndax président Macky Sall bi muy ñëw en 2012 dafa ne réew mi lépp priorité la muy ndox muy courant muy yoon lépp priorité la kon bu may tabax sama politique dama koy tabax ci kenn ko ne fa nga ne nga mën a am li nga xam ne yow jàpp nga ne lii boo ko amee da mën a dund ni nga ko bëggee loolu mooy équité territoriale équité territoriale boobu nag ci bu ma koy màndargal rek ci bi ci gën a bees ndax bu ma bëggee wax li fi président Macky Sall def 2012 ba léegi moom dañ fiy fanaan mais damay wax bi mujj rek bi mujj mooy hôpital yi ñu inauguré bërki démb Kaffrine ak Kédougou ku xool loolu ci wàllu infrastructure nekkul Dakar tey hôpital yooyu gën nañu taxaw plateau médical yi nekk Dakar loolu mooy mandargaal équité territorial ndax kenn ku ne fa nga ne li état di yëkkati jëmale ko ci askan bi dafa laa war a mën a fekk foofu moo tax tey ministère bi ñëw fii ñu ne nañu xool ci wàllu liggéey lan la suñu pàcc ñun mën a indi waxuma sax loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire bi nga xam ne bërki démba député yi voté nañ te loi boobu li mu wax mooy ñi nga xam ne ñi ngi nekk di kër-këri liggéey boobu mu nekk léegi dinañ leen ko tabaxal tëggal leen ko defal leen ko ci anam boo xam ne d'abord lépp loo leen liggéey di ngeen ci gis seen bopp dingeen ci yëg seen bopp ndax yëg sa bopp ci sa liggéey weesuwul nga am tuut liggéey si faj sa soxla denc tuuti loolu loi bi dina fexe nu mu ko man defaree ba mu am mais bi topp mooy gannaaw bi loolu amee ba pare mu ne dinañ yëg seen bopp waaye également croissance économique bi maanaam koomu réew mi yéen ñëpp li ngeen di liggéey dinañ fexe muy bokk ci li ñuy natt ndax xam nga souvent koo taseel danaan la réew mi kenn moomu ko ci laa bokk ci laa bokk boobu la seen label ne ba ci ki toog ci boppu koñ bi di caa jaayi gerte caafam dorénavant loi boobu xaatim na loolu mu nekk di def te nga xam ne mi ngi ciy dund di ci dundal njabootam di ci faj doomam di ko ci yóbbu école di ko ci solal di ko ci yiir am na sànq euh, ki yoroon micro bi nee na dëgg la dangeen ngeen indi loo leen jàppale suñu jigéen yi waaye na ngeen xam ne ñoo def tànt yeeg baas yi dëgg la yéen a def tànt yeeg baas yi jàppale ngeen nit waaye koppar yi moom bu ma koy jox soxna yi du ngeen ko fekkee ndax xam nañ ne bu ngeen fekkee mbir mi li ngeen ciy def amaana du doon ñun liñ ciy def kon loolu également natt boobu ñu nar a seen participation seen contribution dafa am sol te loi bi du yem foofu dafa ne RSE ndax dafa am sànq aussi wax nañ ko ma leen di nuyu au passage mooy partenaires yi nga xam ne maire wax na ko sànq ñi ngi fi di leen gunge ci développement bi ngeen def ñooñu aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ñu am mais nee nañu seen taxawaay également ci biir loi bi dinañ xool nuñ koy gën a tëggee ba nga xam ne dina gën a méngoo ak li nit ñi di xaar yooyu yëpp loi boobu ak yenn infrastructure moderne yi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy tas ci réew mi indi na équité territoriale kon li ci des mooy inclusion sociale et financière inclusion boobu nag ñu bëgg jaaree ci modèle économie sociale et solidaire te li ñu nemmeeku li service yi wax fii mooy daanaka ku nekk danga def bopp sa bopp groupement yi dëgg la am na mais dafa xaw a tas tasal kon loolu ñun gis nañ ne am nañu liggéey bu am sol bu ñu mën a tàmbali def ci wàllu encadrement ci wàllu formation ak ci wàllu accompagnement kon tey fii ci ngéeñeen dañuy jàpp de li may tàmbaleeg yéen contrat bi nga xam ne dama koy jël ak yéen mooy jëlee leen ci jéem yóbbu leen ci mën loolu la ñu fas yéene defar yéen jëlee leen ci jéem yóbbu leen ci mën moo tax dañ koy def ci ñaari anam tey zone bu nekk indi nañ la juróom-ñaari million ak genn wàll ñeenti zone yépp ku nekk dinañ la jox juróom-ñaari millions ak genn wàll muy fanweeri millions yoo xam ne ci ndigalu président Macky Sall laa leen ko jox ndax sànq am na ku wax lu am solo ñun ay ndaw lañ fuñ ñu yónni la ñuy dem fuñ ñu yebal la ñuy dem kon président Macky Sall yebal na ma ci yéen pour liggéey bii ngeen ne ñu indi jàppale bu njëkk boobu di fanweeri million jox ko groupement yi bu ñu defee loolu ba pare ci wàllu focus group yi nga xam ne def ngeen ko ak yi ngeen ci wax ci jafe-jafe dinañu xool ak service yi nan lañ ciy demee parce que am na ñoo xam ne dañu ne nañ leen jox nangam ci financement nangam ci financement yooyu yëpp dañu koy daal di tëgg tabax ko ba nga xam ne ci cadre Pla GP ak accord cadre yi mu am ak yenn institution de microfinance yi ñu mën a indi ligne boo xam ne su boobaa da ngeen di dem foofu jëflante lebalante waaye fanweeri million yii la pour tàmbali li ma leen wax sànq jëlee ci jéem yegg ci mën fi may daanelee nag ndax tey mbégte rekk laa am ci xamante ak gisante mais fi may daanalee maire dafa wax lu am solo ci programme ak chantier yi nga xam ne am na fi mu nekk yu bari yoo xam ne dafa taxaw ma leen di seedeel ne présidente Aminata Mbengue Ndiaye présidente du haut conseil daanaka yii yëpp ngeen wax waxtaan na ko président Macky Sall te joxe na ci ay digle ay directive kon sotti si ak def si la te loolu yemul ci fii rek ndax président Macky Sall dafa njaboote ñëpp kon na leen wóor ne programme yi muy def kenn ku ne ci 557 communes yi ne Sénégal la nga xam ne moo jëm rëkk ci askan wi ci muy yoon ci muy éducation ci muy élevage ci muy lu mu mënti doon jël na alalu réew mi delloowaat ko doomu réew mi kon li des mooy doomu réew mi bañ dugg ci ay fitna doomu réew mi bañ dugg ci lépp loo xam ne bu ñëwee ci sa njaboot lay njëkk dal balaa moo dal ci kenn ñu la ñu jàppandoor xàccandoor dóorandoor ndax liggéey mën naa ne te liggéey mën naa am te nag ku yàgg ci teen baag fekk la fa yaakaar naa baag ñëwoon na baag ñëw na tey baag dina ñëwaat te day bara bara bara bara bar leen di sant di leen gërëm jërë